dañuy wax borom boutique Mbacké boo gis rek magasin mo la joxal fa euh, déjà mais il faut dire que ne ambulance euh, Amanekh a may loolu parce que kon la ko ñu gën ambulance nag par par contre Amanekh su bëggee ba rek moo daan te moo daan te moo nangu sax bëri na ama neex ay jëfam ci làmb attention gars yi di jaaw la de ama neex bëre ji moo gën a jaadu fuuf ama neex bëre ji ak ki nga xamante ne moom mooy euh, ambulance ambulance nag def na devoir am mooy jox na cër magam moo du ànd ñoo bokk tees mais bokk ñegri nee na ko bëgg a jaar ci moo daan da jaagal ci mag te normal mu dëkkaate mais nag combat bu logique la ci diggante ama neex ak ki nga xamante ne moo du ànd dëgg def Moussa Baye Abdou bul sori